ci Mamadou Diop Balla Gaye Fallou Sène Abdoulaye Wade Yingo ñi ngi leen rey ci 14 juillet atum 2010 par police ak ah, par ñi leen rey ñooy policiers yii tey nga xamante ni ñoom ñoo yor kaaraangeem réew mi ci postu de police bi nga xamante ni moo nekk moo nekk yëmbal Dominique Lopi ñi ngi ko torturé à mort à la prison de Kaolack ci 2 atum 2000 2017 Mamadou Bakhoum ñi ngi ko trouvé mu moor 23 juin 23 janvier 2009 daana li ko ci ci bërëbu brigade de gendarmerie yi nga xamante ni moom moo nekk ca Karang Pape ñu ngi ko torturé ba pare lakk ko ci poste de police bi nekk quartier Hamdallahi 4 bu Samsam 1 mi ngi nii nag ñii ñu wax nii ay exemple lañ yu selebre yoo xamante ni tey dañoo dund dañoo dañoo dund ñàkk yoon wala ñàkk gi jaar yoon jaar yoon fii ci réew mi ba tey ñiy dee ci te te ba tey munuñu leen munuñu leen a fàtte ñun nag ñi nga xamante ni ñun ñooy waa collectif ñoo lànk dañoo décider def question bi nga xamante ni mooy policiers yi sonal gi ñuy poli euh, sonal civil yi dañ koo fas ne def question boo xamante ni suñu ci suñuy première problème ci la bokk ndax kat dafa am ñu bokk ci ñun ñoo xamante ni dañoo bokk ci ñun ba pare subi subir chaque jour loo xamante ni mooy. Euh, bavure yooyu nga xamante ni policiers yi ñu ngi koy def ñu mun cee joxe rek comme exemple kaaw gii Marius Sagna gis nañ ni kat yàggul dara demoon na di déposer ab lekk bataaxal boo xamante ni bata bataaxalu yëgle la muy citoyen yi war koo def dem ñu jàpp ko def ko nañ ko def te ñëpp kat teg nañ ci seen bët. gis nañu kaaw ngi Gningue Ardo ngi bi nga xamante ni dafa nekkoon Tobène ak ICS te gis nañ ni kat policiers yi ñun citoyen yi nga xamante ni suñu ay impôt moo leen di fay ñun la ñuy gën a sonal. que koo xamante ni tey ci nguur gi la bokk ardo ñi ku ne teg na ci kaam ku ne teg na ci bët ak tuuma yañ ko tuuma ak fa ñu jaar moom loolu nag ñu bëgg mu dakk ku ne gis na kaawu yaanaamaar bi nga xamante ni ñoom it dañoo yoroon benn bataaxalu yëgle ci kat société bii tey orange ngir ñu wàññi yenn yi pour askan wi ñoom it gis ngeen lañu daj te loolu nga xamoon nañ demoon nañ defi ko bi mujj rek muy suñu ko coordonnateur Pape Abdoulaye Touré nga xamante ni moom ak ay yenn étudiants génnoon nañ ngir rek def point de presse ci yenn yoo xamante ni da leen a naqari ñu jàpp leen tëj leen ba moom ku ko xool tey jii xam na ni am na foo xamante ni ñoom jaar nañ fa ak ak moom. ñii nag ñu ñu fi ñu fi ñu fi wax nii tey mooy ñii ñuy wa ñu wax nii ba pare ñoom ku ne xam nañ ni kat subir nañ ay violence ku ne xam nañ ni torturer nañ. ku ne xam nañ ni sonal sonal nañ leen kon nag loolu moom moo tax waa ñoo lànk collectif ñoo lànk jël question boobu nga xamante ni moom mooy question bi nga xamante ni policiers yi sonal gi ñuy sonal askan wi ku ne tamit gis na ñaar yi nga xamante ni kat am na ci Sénégal sénégalais bu jël photo photo policier boo xamante ni dafa dajale ay téeméer ci scooter am mu publier ko ñu wow ko ci sonal ko sonal yu dul jeex ku ne gis na suñu mbokk boutiquier bii toog ñu fekk ko ci bitigam duma ko dóor ko ci ñi nga xamante ni ñoom ñoom ñoo ko waroon a aar ci ñi nga xamante ni moom impôt bi muy fay ci lañ koy fay ci ñi nga xamante ni ci ñi nga xamante ni te ñu gis ca wet ga ñoo xamante ni def nañ piir te la ña laal laaluñu leen xooluñu leen dañuy dem ci ñi gën a sonn ñu leen di duma loolu moo tax tey ñoo lànk wax ni jëlkatu photo yooyu ak borom bitig yooyu ak kaa yi nga xamante ni cité nañ ko fi dinañ jóg taxaw pour faire face pour wane ni kat réew mi citoyen yi ñoom ñoo ko moom citoyen yi ñoo prime ci lépp loo xamante ni moo nekk ci voie wu yoon ñuy fàttali ni nag bëgg nañu bëgg nañu benn brigade boo xamante ni day saytu policiers yi ci boppam parce que saytu bi dafa des policiers yi kenn contrôlé wu lañ parce que lépp luñ fi mënti def nit en vain mujjul fenn ñi ñu torturer ñëpp ñu wax leen tey fi mu mujj mujjul fenn dañ leen di sax jàllale leen defeere leen ba pare tëj leen ci ci kaw ñu tooñ leen loolu nag la ñuy wax ñun waa ñoo lànk ne ne na dakk dina jeexalee rek ci bataaxal bi nga xamante ni procureur jël na ko ngir bàyyi loo xel encore une fois policiers yi ne leen kat ci diggante ñaar ñoo xamante ni ay citoyen lañ ci wàllum njaayam jënd bu ngeen fekketee coow am ci na ngeen tey te xam ni seen i compétence dafa limité foofu waaye rek ñuy fàttalewaat ni ñoom ba tey bu ñu fekkee ku mel ni orange wala ku mel ni benn ICS wala ku mel ni keneen di jeex ab ak ab citoyen dañuy préférer jàpp citoyen boobu duma ko dóor ko parce que xam nañ ni dara du ca mujj loolu nag la ñu jug ni wax ni na dakk jërë ngeen jëf